di sant Serigne Touba bu bax di delo suñu xel suñu xel suñu xalat sunu yene sunu jëf suñu jëm lépp ñukoy delo ci Serigne Touba jaare ko ci jëm ju tedd jojé di Cheikh Mamadou Moustapha nga xamné tay moy li waral kër gi yëpp ak li waral dëkk bi sax lay wax ndax bis bi nga xamné mom lañ jublu su indi wul won Xaadimu Rasuul tay Touba da danañ am jafe-jafe kon tubaab du mel nii ndax gis nañu ñoo xam ne euh, tubaab bi résistant lañu woon nga xam ne ni Seex Seexul Xadim doon sàmme réew mi bañ goo xam ne da doon bañ tubaab bi not ko waaye nag mu def ko ci jàmm gis nañ ñu mel noonu ku ñuy wax Cheikh Amala ma nga ca wetu Chambéry ca France ca armeel ya foofu teewul waa Mali ya dem di ko siyaare ji xam loolu coono la te sëriñ bi mi ngi woon ci résidence surveillée temps yoo ko fi Cheikh Moustapha di jël il fallait que mu am xel mu mu rafet xel mu rafet euh, Pastef bu wéy xam sëñ Tuubaa lool mu daal di doxal yéene yi sëñ Tuubaa yooyu yëpp mu bàyyal ko ko ak ndénkaanam ya mu eggale ko eggale ga la ci jiitu nag mooy indi gi fii ci Tuubaa bu amul woon tey lii du am kon alhamdulilah képp koo xam ne taalibe nga wala nga yaakaar sëñ Tuubaa war nga boo xëyee ne jërëjëf Cheikh Maodo Moussa kon nag loolu lu am solo la kon sëñ Moustapha mii tey ñu ko duppee muy doomu suñu mag ju tedd ja sëñ Mouhamed Mbacke lii mu def tey itam fàttali na loola ndax jëf ju rëy la yoo xam ne ñëpp mën nañ cee teg seen bët te bu maamam ñëwoon kët dana ci bëgg bu maamam ñëwoon dana ko ne waaw góor kon nag loolu doy nag cant euh, noo ngi koy sant suñu cantu bopp nag ngir li nu boole lépp dafa xaw a bari ba wax ci moom daf may xaw a jafe waaye nag wax ci ku baax itam loo ca wax rek xeeb ko ndax yàllaa ko def euh, dama ci fan yee euh, damaa dem siñ si Moxtaar mu am lu ma wax daal di ne ma euh, li gën a metti ci àddina moo di feebar bi gën a metti kenn mënu koo faj mooy bañ dogalu yàlla waaw lu yàlla dogal boo ko nangoo da lay noppal waaw kon suñu borom lii mu dogal ci moom nangu nañ ko bu baax yéene nañ ko bu baax lépp lu ko waay defal ci yéen ñi nga xam ne yéen maa ngi la koy wax léegi yaa ngi sonn guddeeg bëccëg ma di ko gis moom mii noonu ak képp koo xam ne néewoo fi teewalaal ngeen teewal ngeen ñëpp kon lépp lu ngeen ko defal rek ñun ngeen ko defal famille Daaru Xudoos bépp ngeen ko defal Cheikh Mahamadou Moustapha ngeen ko defal te ku defal Cheikh Mahamadou Moustapha sëñ Bamba Fay la kon noo ngi sant yàlla nañ ñaan yàlla guddalu fanam ci dara yi sëñ Tuubaa sëñ Ahmad mii fi nekk tey Ahmadou Maxtaar yàgg ci kanamu kër gi ñëpp ñu ànd kër gi lépp nekk benn ñëpp rek ndax loola mënut a ñàkk ndax Cheikh Mahamadou Moustapha li mu defal sëñ Tuubaa kenn mosu ko ko defal ndax mooy ndab lu jiitu li fexe na ba mu jekk li Serigne Touba defal yonent bi kenn mosu koo def kon kooka bu fi bàyyee njaboot njaboot ga du man lu njaboot gu jub goo xam ne eh, ñu bari dañuy roy ci ñoom kon loola lanu war mooy ñu ñëpp ñu nekk benn bokk ndey bokk bàyyi ndax bu woon sëñ Modou Moustapha kat nooy bokk ndey foofu la sëñ Modou Moustapha eh, xame lu bari fa ko yàlla dimbalee ci lu bari bu nu bokkul woon sëñ Modou Moustapha nooy bokk ndey kon nag alhamdulilahi rabbil alamin li ci des yomb na ñu ngi sant ñëpp